Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité et la cloche de notification. yàlla dogal na Gaston Mbengue mi il ans moo leen njëkkoon a boole ci li ñu tudde woon le challenge orange keroog dañoo bëre ba arène bépp doyal stade bi kenn bëggul woon kenn yóbbu ndam ndax jom jañu ca wone ak fulla ja ak fayda ja nekkoon combat bu nga xam ne man mi toog maa ko doon reporté sur la RTS Moustapha Gueye nekkoon sama consultant keroog dafa kontaan ba tëb ni lii mooy komba lii mooy komba ndax ñaari mbëri lañu ñu amoon la amoon yépp la ñu joxe ci komba boobu acte deux bi ñu ñëwaat ci Eumeu Sène am ndam ci ki nga xam ne moo di Lac de numéro deux ñii ni da koo nax mu ni da ko guitare bii yoon nag nan la nar a demee ci acte trois bi ndaxte keroog bi nga xamante ni combat bi jeex na Lac de Guiers gëmul woon ni dafa daanu il a fallu mu ñëw ba ci plateau bi ñu tegal ko ralenti bi mu xool ko ni ko mbër félicitation yàlla na la ndam li keroog la dégg muñal bi yoon nag Lac de Guiers nee na ma ci suuf komba bii dama bëgg mu dàq suñu ñaari combat yépp passé te bëgg naa yi tamit mu raw bu njëkk ba waaye bëgguma mu mel ni de acte deux bi kon am na lu muy séntu ci Eumeu Sène loolu lañ koy laaj lan lay séntu ci combat bi. asalaamaaleykum maa ngi leen sant di leen gërëm du nuyu képp koo xam ne amateur làmb nga du nuyu sama papa euh, père Ali du nuyu père sama papa Kayre maa ngi koy ziar bu baax a baax sama papa Masata maa ngi koy ziar. ko ñaanal yàlla yàlla dafa ko jàmm ah di nuyu suñu papa Gaston parce que dëgg na loo xamante ne tey moom lii laa gënoon soxla sama làmb ah waaw parce que tey nekk na làmb boo xamante ne làmb ma fonk la làmb làmb bu ma jox cër làmb bu ma respecté waaw parce que Eumeu Sène dañoo bëre ñaari yoon ah benn bi ñu match nul benn bi mu daan ma ñu war a bëri fois sànq jot naa cee wax ci journal yi nekk ci biir yi wax naa leen ba mu may daan bee wul tout tànk la mu nax ma ba daat ma mm-hmm. ma ne ko bii nag xale màgg na ah. te ci kàttanu yàlla dañuy dem jëlee lu ñu moom incha allah bu neexee yàlla mm-hmm. combat bi safara lañ ciy xaar lu dàq premier acte ba moom lañ ciy xaar loolu ci yow la dépendre wala ci ëmmal la dépendre waaw premier act bi boo xoolee combat bi métti woon na trop mm-hmm. ba ñu doon seetaan lamb ji estat jour seen xol sedd na deuxième acte bi ñu war ko bii saat maak moom bañ ko waree biisaat nag ah mu jaay ma xelu mag daan ma ci j'espère que bii baa du ma jéem a jaayaat xelu mag dañ koy jéem a biisaat comme bu njëkk ba wala bu raw bu mu njëkk ba rek bu la jaayee xelu mag ndax doo ko jaay doole doolee xale waaw noonu la nag làmb noon la ah. ah mag a xale la rek te incha allah ci kàttanu yàlla barki sëriñ baa bëgg ci kàttanu yàlla même ndam ah ci kàttanu yàlla ëma moo tax entraînement baax ñi ngi jëm ci sa troisième ak ki nga xam ni moo di Lac de Guiers numéro nee na première bi dangeen ko joxe ba mu neex deuxième bi nga jaay ko xelu mag daan ko troisième bi nag nee na bu ko jaayaat xelu mag ndax xale mag la. waaw d' abord def mooy sant yàlla bu baax. di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di gërëm ci ñaari waajur yu mag. di nuyu kilifa ñu ne yokk kàddu gi di nuyu kilifa aada yi di nuyu Père Ali di nuyu suñu doyen. Kayre maître Kayre. waaw nee na acte trois bi acte deux bi da koo naxoon ba gitaar waaw ah, acte trois bi nag nee na xale màgg na doo ko naxaat. waaw loolu moom ñu ñëpp ay ñu ñëpp ay xale ñu ñëpp ay morom lañ rek fii mag ak xale amu fi ñëpp ay morom lañ dañoo bëri woon yàlla def ñu mat match nii ñu bëriwaat yàlla suñu borom yàlla mu doon taw def ma daan ko ñu ngi dajewaat dañuy ñaan yàlla suñu borom dem rek. muy mbër moo xam moo xam la lool. waaw. loolu am la. Mm-hmm. et puis mu nekk combat bu nga xam ni dafa ñëw ci moment bu nga xam ne Eumeu dafa yoroon titre roi des arènes ñàkk ko am lu mu ameel waa Pikine parce que keroog waa Pikine ni nga ñàkkee da leen a métti nga war leen a fay bor sa diggante ak Lac de nekk premier combat après défaite boobu. waaw combat la bu ñu fonk parce que tout may wax rek ni champion ñu koy xam ci retour am. Mm-hmm. làmb la nag mais nag. bis bu ñu fonk la waaw bés bu ñu fonk la trop waaw ñu ngi ñaan yàlla suñu borom bi dara taw yàlla suñu borom yàlla ñu yàlla may ndam mais bés bu ñu fonk la yaakaar naa ni waxtu di def lu bëri moom moo ma jig waaw man wax mënu ma ko noonu waaw mais nag làmb la dinañ ko préparer ni ñu ko war a préparer li ci war a dinañ ko def. premier bi da ngeen match nul deuxième bi nga gitaar ko troisième bi loo fas yéene. <laughs> ñaar yàlla may ñu ndam rek li xaw ci si bi yàlla su ma ko xam mhm. mais ñu ngi ñaan ndam te am nañ ci yaakaar bu baax a baax est-ce que mën nañu xaar combat bi gën a neex seen ñaar yi ngeen dépassé waaw lu mën a nekk la parce que nu ma déggee ni mu waxee ah yaakaar naa bu ko arbitre sifflé dina dina dina bëre dina xeex na mhm. nu mu waxee am jàpp naa ni bon combat bi comme ko waxee rek li mu gën a bëgg ci àddunaam la combat mu yaa xam ci woon la man maa koy dégg fan yëpp tey tamit aussi bëggal na ko waaw kon combat la rek combat la kon yeneen combat yi rek mm-hmm. waaw mais nag yàlla baax na ñu ngi ñaan yàlla may ñu ndam mm-hmm. góor daal balaa kaay bi ñam ko te ñamante nañ deux fois mm-hmm. waaw kon làmb la quoi dañ ko jàpp foofu kon yab na ko non góor balaa kaay yëpp ñam ko la ñam nga ko ndax yab nga ko <laughs> yàlla baax na <laughs> waaw nañu waajal rek di woo sama mbokku joolaa yëpp waa Casamance yëpp mm-hmm. di woo tamit aussi sama mbokku séeréer Fatou Fatou yëpp di wax ni lamb ji seen lamb la di woo waa Màkke Diané di woo waa Bogal waa Pikine moom combat seen combat mm-hmm. di ñaan suma rakk yi fa nekk yëpp tam combat yàlla su borom may leen dara mm-hmm. après dañuy yëgaat waaw xam nga nit ak mbokkam ah? waaw man dafa am ci côté yu ma bokk Mhm. bokk naa ci ñetti côté yëpp waaw ah. bokk naa ci waalo waalo yi bokk naa ci séeréer yi mhm. bokk naa ci soose mhm. yaa ngi dégg tey ñooñu ñooñu mu entouré kon donc mënu ma toog ba jóge fii te tudd leen gërëmu ma leen dëgg la dañuy son dañuy son samay combat woo leen tamit waaw di woo waalo waalo yëpp ah képp koo xamante ne yaa ngi waalo ak tund waalo boo mënti nekk maa ngi lay sàkku ñaan ci combat bi bu baax a baax a baax di ñaan mbëru waalo yi nekk waalo ñëpp ak pëlu waalo yeeg ñëpp ñëpp jàpp ci surtout pëlu yi ñëpp maa ngi leen leen gërëm képp koo xam mooy daw sa yaram day ñëw day ñëw maa ngi lay ñaan nga jàppale ma ma ci mhm. di woo képp ah, ah, ah, nee na comme yaa ngi woo pël yi xanaa takk nga yaakaar waaw <laughs> parce que pël yi moom nee nañ ku woo da ngay bëgg takkaate même ma ñëwal ba pare xaar maa ngi ñëw ci moom woo séeréer yëpp ah ci sama côté yaay di woo séeréer yëpp képp koo xam ne kullu séeréer nga maa ngi lay sàkku ñaan ci combat bi yàlla may ñu ci ndam ɗi wohɓe mbade mbanndikol ana kam moyla oh. aldi malla degue a yo combat sotani amba seeɗa alba dawoɗa duniya kono ha shérif o baynunkeel joolal altel ɓe momo on ka fo nko mbaɗano ñin ko mbatal yen suɗu waɗa jeeyi par ce que ntini amma sen lo dafta ka boyi inchallah naadiyatala mbanndingol ala barka fon fon mbaldanolo duwala shérifol nak shérifol mumba dawoɗa mum konto mo aydarati mbaɗanolo a yen so duwala shérifo mo dawoɗa banguére an Ziguinchor Chérifol ba jee en Casamance bel mbal dama jël su waddu wàll incha allah ala warta ala barka fam na woo ndax da nga a takk wax wuyul woo ah, ak sa benn dàll yi nee nañ lu waral benn dàll bi maa ngi woo waa Géejawaay ah pour lu waa Géejawaay waaw combat bi combat waa Géejawaay laa hmm. maa ngi woo ñëpp bàyyiwuma kenn képp koo xam ne autorité nga biir Géejawaay maa ngi lay sàkku ñaan hmm. di woo sam papa ma ma sata di woo Baye Al sam papa Baye Ala Ndiaye di woo ñëpp ak Aziz ñu ngi sant di woo sama papa Aziz Ndiaye ñëpp maa ngi woo famille Aly Ndiaye yëpp ñëpp combat bi seen ko lu ko dalee xale ba mag ñëpp sama yaay yi fa nekk na ñëpp ñaanal seen doom la waaw mu léegi mu ne mu ne yi xanaa da yaakaar takk ko moo taxaguñ ko sax ah. taxaguñ ko moom <laughs> maa du foofu nga ko wékk non wékkuma ko fa man ci li ma koy wékk leen la rek mooy entraînement wóolu li ma yor mhm. waaw ndax dama gëm ne man sama entraîneur dëgg salle bi ñëpp ñaari daal lañ sol nga sol benn daal lu waral lu ni mel. bi. ah bon solaat nga ko. non kon. non gars yi ah? nee na da nga yaakaar ñu hmm. ngi ah. xam bii ma signature contrat. bu ñëwee ak lu mu laaj moom ngay wax. Hmm. bésu làmba ji yaay xam sa bopp yaay xool di ngay gérer sa combat nga gérer ko noonu. ok yaa ngi dégg. voilà lu ko raw dina ko dala ci la ko jeex. tipp tipp yi nekk ci tànkam yi sax suufu tànkam yi tipp tipp yi fa nekk xamul na xam na wasalaam. lag bul dem xam ci li mu wax garaaw na. <laughs> lu raw li la daloon contre la dal sa tëpp tëpp yi nekk sa tàggu tàgg sa xam na <laughs> wax te nee na wax waxu la tàkk waaye tàkkagul la euh, tëpp rek la wax waaw tëpp tëpp ne bind la du tëpp tëpp waaw bind nekk sama tàkk du tëpp tëpp du du waaye tëpp tëpp bind moo nekk suma tànk bind la bind la rek yegg ci rek man bind moo nekk suma suuf tànk ma sama tànk loolu judduwaale ci man bind la du tibb tibb moo ko bu mu gën a leer voilà noonu laa judduwaale ay bind la mais du tibb tibb d'accord yaa ngi suma xarit la waaw non du keesoo mën a rëccee mun naa simb sama tànk wan la ko léegi loolu dara yow mbëri moom yaa am gën a xam wax mbër ko. ayca woote. voilà non man woote naa par ñu may woo woo naa rek. jërëjëf merci di sant yàlla bu baax nag. waaw dañuy génn dañuy génn. di gërëm samay ñaari waajur mag yàlla moo def sama combat bi paase ma daanu ma ñàkk suma korom loolu mbir yàlla suñu boroom la dama koy nangu waaye na fekk moom mu jëfee ko maa moom laale nañ bu baax xamante voilà dama ko duuma bar bi nang samay loxo ñu bëre waat ma jàpp ko dëj ko du dëgg waa làmb la nag na waajal rek ma waajal du dëgg ne dalaa duma de ne dalaa duma baat bi nangu la de dama sa ndey waxu ko ne bu njëkk nu mu demee moom combat bu métti ñun ñaañu kenn dem na ci ardo mm-hmm. yaa ngi dégg département bi sa bëñ moo ma laal fii rek dégg la ma fi mu naa ma jeune yow ma dóor la coup bopp nga naa ma fii la xarit ja coup bopp sama bopp toj yow la moo def nii yow la moo def nii sama xarit yow sama bakkan ba non sama gémmiñ bi dara new non non non sama gémmiñ dara new gémmiñ bi loo defoon la moo ci nekk la suñu combat mujj bi sa gémmiñ bi loo def nii la moo ko def mais yow kañ kañ ngeen commencé itam den yu mais saa waay demal nii rek mbaa garaaw kan jàll xoolal weddi wu ma sama jàmbaar man aw ma moo ma defoon lii man aw ma aw ma bëgg ko di wax ak moom bu mujj bii nii ba arbitre waay sifflé coup bi ma ko dóor moom moo taxaw wax carrément ne Lac de Guiers 2 moo ma dóor coup boo xam ne ba mu ne nii sama làmmiñ day génn lan la journal yaa ngi. waaw wax li waxaat. waaw waaw d' accord man moom non garaaw garaaw garaaw. yu ma moom mu ngi lay attaqué non non garaaw làmb la non non non garaaw garaaw. nañ ko bàyyi rek mu wax. c'est vrai non lax man moom yàlla xam na ne wax mënewu ma ko. xam nga man du ma du ma mënuma loolu. Mm-hmm. làmb la moom na gérer détail yooyu. ok. Mm-hmm. yàlla baax na. nga du ngi ñaan yàlla suñu borom mu may ñu dam mais wax ju bëri ji mënuma ko. mënuma Gaston